dawɗo koye wari ñalaade ha jari ndimo bi de birdam kaŋe loraɗo ɓirɗam ñalaade ɓirɗam rufitake kaŋe woppitake ñalaade eh yo ka jallam ñalaade o dawɗo koye wari ñalaade ha jari jafoɗomi noon seeɗa mane gamu bi dafa ala dawme ñu continuer ci programme bi programme bi remettre nañ deuxième lot bi nga xamné ni groupements de promotion féminin yu met daw de la commune de Tcharni. yo xamné ni am reconnaissance juridique les présidents de groupement sont là donc ils sont là. ni tok bu Ils sont là. ngeen ci là biñu présenté biñu joxé joxee revenus yi ba nopi ñu wax leen na leen dafa am l'enrôlement des deux collèges collège yu ak collège yu lool moy lan moy jël en charge gratuitement élèves yi jàngee ci lycée Xoge ak lycée bu Thiargny CMI bi Me Daouda Ka def ko ci poosam laaju ci ben parent dara lool moy deuxième phase bi donc lool moy suñu ay action sociale yi nga xamné ni dañ koy def ngir jappalé askan bi parce que aussi le président de la république

muy suñu mag Cooy Ndiaye ak euh, benn rakam Gélaay Ndiaye donc ñu ngi remercier de passage le ministre Aly Ngouille Ndiaye vraiment depuis bu ñu demee le 26 euh, novembre Dakar ba léegi moom loxoom xelam lépp mi ngi ci mettre daaw de kon met Cooy euh, Ndiaye santal ñu le ministre Aly Ngouille Ndiaye vraiment kontaan nañ ci moom. di leen wax ne aussi tey lii lu ndaw la rek lu ñu war a mën a wane. parce que yéen ñu ko jik yéen président de groupement yi di wax na dañuy continuer nak ci deuxième phase bi moy l'enrôlement dañuy wo dañuy ci l'enrôlement bi lañuy continuer totum enveloppe légui ñu jox le sous préfet mu sànni ci kàddu après ñu libérer ko monsieur le sous préfet de l'arrondissement de. sañu ko sañul bañ nangu wante ñaari baat bu mako waxe li ci xalaat met jégal ma di salmina bandera bi fof mi njuulaa du noonu sa ziar du noonu ah léegi la le reste le reste la CB va fii ma toog ni Serigne Cheikh Say Mbacké xalifa Serigne Son bu mu ngi may woo téléphone di ma xaar samali ma war fa dem ndax kilifa la moom it bu nekk ci biir arrondissement bi di fi amal bésu diine mu jaadu ndawul président de la république teew fa buñ ko deful it fekk na day dañu wàcc moo tax ñu ñëw fi depuis 14 heures ànd ak le commandant de la brigade de gendarmerie mu ñëw indi ay éléments yoo xam ne assurer sécurité gàmmu Carñi fii ba suba incha allah su ko defee ñu dellu dem feneen loolu moo tax ñu ngi jéggulu ñëpp ci li ñu yàq protocole bi ñun ñoo ko yéene woon bëggoon ñëw li sabab nag ñu ñëw moo di lii ñuy def di développement d'abord mooy dimbale groupement de promotion féminine am ay attestation ndax balaa nga naam naam nefa doone man groupement la rek te amuloo kayit kon su fekkente ni am na doomu dëkk bi boo xam ne développement ñor na ko mu ne naa jàppale jigéen ñooñu ñu mën a am kayit boobu ba tax na fu ñu soxlaa groupement ñu mën a andi kayit kooku dañu ñëw fekk si ko parce que li muy def ñun la koy defal ndax président de la république la koy defal loolu mu teg ci élèves yi nga xamante ni président de la république moo njëkk def politique pour fexe ñu jël leen en charge bu ñu feebaree gratuitement def ci taxawaay bu mat sëkk ba nga xamante ni li ñuy participer du bare mu walbatiku ne ñooña loolu participation boobee donte ndaw na ñu nar ko defal seen bopp man dinaa leen ko jëlal en charge mu dugg ci politique de couverture maladie universelle bi président de la république indi fii ci Sénégal loolu couverture boobu nag bañ koy def daan nañ def ay réunion daan nañ ko wax nit ñi daan def appel ñu ne na ci borom doole yi dugal seen loxo dimbale ñi néew doole commune yi di ko def bi ma nekkee Linguère le ministre de l'intérieur maire de Linguère def na ko jël mag ñi fay leen gratuitement ci CMU élèves yi mu def la même chose ak yeneen catégorie sociale mais yemul kese ci ministre ak maire donc maître Daouda Ka mu dëgg appel boobu moom it mu ñëw rejoindre si euh, politique bu noble boobu mu ne moom na jàppale élèves ñu dugg ci couverture maladie universelle ba nga xamante ni dañuy faju te duñu fay dara loolu nag maître ci turu gouvernement bi ci turu président de la république ci leen lay sant di la ci gërëm di la ñaanal yàlla li nga bëgg yàlla na nga am yàlla na la yàlla defal sutura parce que lii ñuy def nii tey développement pur la mu ñëw joindre ko ci gàmmu gi ndax gàmmu nag du lenn lu dul développement ndax yonent bi salaa salaam moo tax ñuy gàmm te yàlla daf ko yónni pour yërmande xeet wi xeet wi nag yërëm leen mooy génne leen ci ndóol yóbbu leen ci développement kon su fekkee ñëw na ca bésu gàmm mu génne xeet wi ci ndóol c'est-à-dire mu dimbal leen ci faju kon li mu def dafa dugg ci cadre politique yorent bi donc dafa dafa ànd bu baax a baax ak gàmmu gi ànd bu baax ak la vision du chef de l'État le président de la République Macky Sall ak l'ensemble du gouvernement le premier ministre le ministre de l'Intérieur loolu la ñu woote rawatina ren muy atum sociale président li mu ci def da ko tudd atum social ren rek waaye ku ne xam na ne li mu def ay atti sociale la bi nga xamante ni moom laa ciy wax bëgg profiter de mon mi pour l'éral ko nit ñi les bourses de sécurité familiale loolu ken musul gis réussite bu toll non ci aduna man mi di wax dekk ci all bi ci all bi daan nek doomu baykat ku ne suma déggé ku francs c'est 4 fois rien c'est parce que koku xamul lu xew wala la Sénégal pourquoi ma wax ko bu bay mi ngi nek 7 mois fi ngay ruujee ba fa ngay faree man ko 7 mois la 7 mois yoy da nga gis ko bay ba paré jaay gerte jaay ngogn jaay lépp te du am 20 000 francs yow ñu ne la da ngay tëdd sa kër di nalaw su 3 mois joté nga dem poste del 25 000 francs ko ku ko c'est parce que tu n'as rien compris dans ce Sénégal la te limay wax ni Sénégal gi la am man je l'ai vécu pendant 7 mois tu n'as pas 20 000 francs aujourd'hui tu dors pendant 3 mois on donne 25 000 francs loolu xëy peut-être que tu da en termes de France ou bien en termes de Canada ou bien en termes d'un autre pays développé mais nous sommes des Sénégalais donc politique sociale c'est ce Ce président est une année sociale c'est parce que euh, c'est la générosité le président de la république c'est le représentant de tous les sénégalais bu vous loola dafay wax ñëpp ñu ñoo fekk si ko ci maître merci beaucoup ba nga rejoindre Nous ñu ñaan ñi fi gens qui may leen as nous ñu def ko maître Daouda Ka ñoom itam seen si tuut ñu bokk ak askan wi ci ni nga xam le président de la république bëggee ci ni nga xam le président de la république gisee loolu mooy tax ñu mën dem ci kanam en tout cas au nom du président de la république au nom du gouvernement nous te disons merci nous te félicitons jigéen ñi. ngeen bañ a jël attestation dem denc ko na groupement yi fonctionnel na groupement yi dem liggéey na groupement yi di jóg ko daanu bu fekkee yàlla dogal na am yeneen financement yu ñëw ngeen jàpp ca def ko liggéey jàppale président de la république parce que mooy jàppale seen bopp. parce que tey ak lu mu mën a créer te organiser wu leen du ngeen mën a dem kon nag am ngeen ku leen jàppale profiter leen ci loolu ngeen dem ca kanam seen commune avancée développé mu nekk bar Bargny émergent. bar barke émergent Linguère émergent et Sénégal émergent maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam min dañi komin peerat dañ sabu kala mo wonatono ɗo waɗ groupement ko jawdi ma mbatta métere dawoud noon kam holli amen bolol min jetti allah min jetti ɗum min beltima kaddi beltour. an samba jeegi an ande ko jiɗɗa yo allah hokkuma ko jiɗɗa ko allah jaggiranma aali nguyi o komin layanno ɗum ko dakar ha hande ko yeesa rondi hibbitake keeci e minen noon min mbawi hande tan ko weltade ñalawma he yo allah yawtanir golle ɗe yeesa rewɓe kam hanti ɓe jii damal ɓe koltake hay goota koye mumen tan heɓe heɓe tinne samba jeeyi samba holli amen damgal ngal hanti min keeɓi bolol allah jarama on jarama min beltima min beltima ɗin len yonkoye commencé ci bisimillahi rahmani rahim aggale ko si alhamdoulillahi rabbil alamin wax dëgg yàlla ñi fi ne ñi maa ngi leen nuyu daawuda nag moom dañ koy bayeeg yàlla rek mais daawuda dañ koy bayeeg yàlla fi mu bëgg a àgg moom moo ko xam yal na ko fi yàlla àggale ndax wax dëgg yàlla bu ko neexoon mënoon na ne man duma jàppale jigéen ñi ndax jigéen ñi xawma ma leen xaw ma seen jukk waaye loolu lépp fekk ko si daf ne man jigéen ñi ñoo ma tax a jóg jigéen ñi laay dimbale ba neex Bonsaf, saf sap neexu len waxtu len wax len mané bu fekkon day day xaré ji tay jarul mu yobbu gor ñun ñi ñun jigen ñi rek buñu demee defal ko bam baax barke sayyidina Muhammad te li may wax dama ko sama xol man rek man man jolof jolom jolof jolof la ñun ku ñu ñaan ñu may la waaye ku ñu yu ku ñu togn ñu duma la parce que Seydina Mohamed billaahi wallaahi lii ma lay wax nii tam dëggul si man kon nag daaw da mii mais daaw da mii ah jigéen ñi sant nañ ko gërëm nañ ko ndax tey lu génn fii jigéen ñi buñ taxawee danañ si mën a jàpp ñun liggéeyuñ woon defuñ woon dara dañoo toogoon rek sangu sax taluñ ko woon suñu añee bañ na ko ba te ndur raxasu dañuy toog sa garab ga mudun duñ bale duñu def dara waye daawu daf ne togaay bobu ngeen it mi daawu daf ne togaay bobu ngeen di tok dama ka bëgg génné ci yeen dama bëgg ngeen dem ñafé gi liggéey def né goor ñi kon nag ñi fi dajé ñepp ma ngi leen sante di leen gëreum ya li bëgg da yalla ñu ko yalla defal yalla na taxaway bi yag ci suñu kanam ñong koy ñaan limi muy yóotu nag yal na def yalla nako yalla sotal ci barkat Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. jigéen ni ci par rapport au groupement yi léegi dañuy continuer ci li nga xamné ni moy couverture maladie universelle bi nga xamné ne maître Daouda Ka mom mo jël en charge élèves yi nga xamné dañuy nek ci CM bu xogé ak CM bu Carñi mais pour lolu nag dañuy ci jox honorable député non non euh, ñaari directeur, yi manam directeur bu xogé lañu jox cadeau mu wax mom lu mu gisee affaire bobu après ñu jox directeur bu charni bu ñu àggalee ci ñooñu maître euh, honorable député Adama Sow suñu tonton Sidel après met Daouda tëj kàddu gi joxe vraiment li nga xam ni mo mooy mbir mi. maa ngi Papa Laba Dioum nekk principalu CM Xoge euh, di wax ci turu collège d'enseignement moyen CM bu Xoge balay lolo. dina yëkkati kàddu ci turu inspecteur de l'éducation et de la formation de Linguère inspecteur Diallo inspecteur Diallo bu bëggoon na teew tey fii ci ndaje mi jokkoo na ak man sànq ci takusan wax ak Ndiaye neewoon na ndaje mi am na solo solo solo trop ba nga xam ne bëggoon na ko teew waaye dafa am beneen jatuwaay bu ko jàmp moo tax mënul teew tey ci ndaje mi waaye kàddu yi ma yëkkati ci turu inspecteur de l'éducation et de la formation de Linguère la Diallo ak ci suñu turu inspecteur d'académie monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Barkédji monsieur le commandant de la gendarmerie de Linger, monsieur le maire, monsieur les honorables députés ici présents, monsieur le maire, yéen invités yi fi nekk li ñu fi dajalé tay moy lu am solo ci ñun nek ci école yi mais lu am solo également ci parents d'élèves yi ndaxte bi école tijé ba légui parents d'élèves yi ñu ngi leen di wo di leen sensibiliser woté assemblée générale wax élèves yi. waaw ndaje tay mi tay xam ngeen gàmmu la dañuy profiter ci gàmmu bi dajale suñu militants yi waxtaan ak parce que euh, rencontre bu mel dafa jafé té gamou aussi occasion la pour nit ñi gissé té ministre Aly Ngouille Ndiaye ñu délégation bu mag bo xamné euh, député Adama Sow moko ko ñu profiter ci également parce que le 17 février joxoon nañu jigéen ñi seen attestation 25 attestation tay nak dañ doon compléter ñi nga xamné ne guñu won nous avons 14 groupement une attestation Nous avons également des collèges yi la porte. Nous avons également des collèges yi collège de Thiarny et collège de Hoge euh, man ma déposé une caution pour que élèves yi ça parce que dama avons ak directeur école nous ñu lancé une publicité pour que les parents d'élèves yi pour que l'élève élèves yi gratuitement euh, biñ ko defee ba légui danaka liñ ñu enregistré par benn la wala par ñaar man bima ma ak ñom té xamna aussi importance parce que comme on dit un esprit sain dans un corps sain bu ké wéeroo sa yaram war mënoo et té parents aussi war amuñ doole ñu ñoo wara jappalé lool mo loolu sabablu ñu def geste biñu def et geste boobu aussi président Macky Sall def wax né tey année 2018 année sociale et deuxièmement la couverture médicale universelle dafa bokk ci axe plan bi nga xamné ne nako pour mu def pour mu suuxal Sénégal donc loolu moo donne suñu ndaje tay mais tay bés gàmmu la parce que ñoo ngi préparé sax pour dem ci bâche bi. bon il y' a au moins 200 élèves ñaari téeméeri élèves yo xamné ci ñaari collège yi la donc enrôlé na pour ñu mëna am accès gratuitement aux soins.